أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نيجي أندا تجين kitaabu tawxiid ba tey ñu ngi ci ñaar fukkeelu bunt bi ak benn te muy jàngale li yonent bi alayhi salaatu wasalaam indi ci aar tawxiid ak tëj bépp bunt boo xamante ne dafay ubbi bokkaale muy baabu ma jaa fi himayati almustafa sallallahu alayhi wa alihi wa sallam janaba tawxid wa saddihi kulla tariqin yusilu ila shirk bi ñu fi mujjee ci dars bi bi passé ci kitaabu tawxid dars bi ñu amoon xadis la woon dañ ko daggoon ci digg bi ndax da doon jàngale julli ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam mooy xadisu abu hurayra bi yonent bi di wax ne laa tajcalu buyutakum quburan wala tajcalu qabri ciidan wa sallu alayya fa inna salaatakum tablughni haysu kunt rawahu abu dawud bi isnaadin hasan riwaatuhu siqaat benn wàll bu njëkk bi ci hadis bi jàngoon nañ ko mooy bi yonent bi ne bu leen def seen kër yi ay bàmmeel bu leen def sama bàmmeel feet def ko dajewukaay mu ne na ngeen julli ci man ndax seen julli bu ngeen di julli jëme ko man fu ma nekk daf ma fay fekk kon dars bi ñuy jël tey mooy julli ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam xam ngeen ne loolu ndigal la bu bàyyeekoo ci yàlla jëm ci jullit yi borom bi subhanahu wa taala moo ne inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayuha alladina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima borom bi moo woo ñi gëm ci baatu ngëm la leen woowe muy ya ayuha alladina amanu e yéen ñi gëm mu ne leen yàlla ak malaakaam yi ñoom de dañuy julli ci yonent bi yàlla ak malaaka yi dañuy julli ci yonent bi salaatullahi ala nabiyihi lan mooy julli yàlla ci kaw yonent bi lan mooy loolu loolu sana'uhu alayhi tagg la julli yàlla ci yonent bi tagg la inda malaikatil muqarrabin yàlla mooy tagg yonent bi ci kanamu malaaka yi ko jege wa rahmatuhu bihi yërmandeem la bu mu jagleel yonent bi alayhi salaatu wassalaam waaye wa fadluhu alayhi xéewalam la aussi bu mu sotti mu nekk ay waame ci kaw yonent bi alayhi salaatu wasalaam loolu mooy yàlla day julli ci kaw yonent bi kon tagg la yërmande la ay xéewal la waame yu mu dot ci kaw yonent bi loolu mooy julli yàlla ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam salaatul malaayika alayhi julli malaaka yi ci yonent bi du'aa'uhum wa istighfaarihim lahu ñaan la gu malaaka yi di ñaan yàlla di ko ñaanal yonent bi njéggul la guy malaaka yi di jéggalul yonent bi alayhi salaatu wasalaam ci kanamu yàlla ndeke loolu mooy julli malaaka yi ci kaw yonent bi alayhi salaatu wasalaam suñuy julli ci yonent bi lan la ñuy wax ndax dañuy jàpp lal suñu sijaada gis nga tey julli di fi ñu toll ci réer am na ci ñoo xam ne dañu yaakaar ne julli ci yonent bi mooy da ngay dem jàpp lal sijaada ñëw ne allahu akbar maa ngi julli ci yonent bi léeg-léeg saa yi nga dégg ko wax loolu noonu la ñuy jullee ci yonent bi ndax réer rek julli ci yonent bi ñaan la guñ koy ñaanal maanaa bi lu muy tekki suñu wax ci ñuy wax ne allahumma salli ala muhammad yow yàlla yàlla na nga julli ci yonent bi mooy yàlla nga sotti waame xéewal ci kawam yow yàlla yàlla na nga ko màggal yàlla na nga ko réyal maanaa bi lu muy tekki allahumma salli ala muhammad lu muy tekki mooy azim ya rabbi muhammada yow yàlla muhammad day koo màggaloon la waaye yokk ko mu gën a màgg loolu mooy allahumma salli ala muhammad léegi nag réer gu rëy a ngi fii réer gu rëy rëy rëy réer goo xam ne am na ñu ci sànku ba dee dem alaaxira mooy jullit balaa ngay julli ci yonent bi ñu jox la ndigal nga dem ñaani wird ñaan wird gi ngeen di dégg du lenn lu da ngay ñëw toog sa kanamu kilifa mu daal leen a defal astaghfirullah nangam defal allahumma salli ala muhammad nangam wala mu jox la benn salaatu mu ne la may naa la wird léegi nag instant bi nga am droit di wird léeg-léeg nga dégg kuñ ne yow jël nga wird mu ne jëlaguma de ii loolu jëlaguma ko ndax loolu moom boo ko jëlee fii du du ànd ak fo ba ci kanam ba ci kanam combien de fois ñaata yoon ngeen di dégg ñuy maye ay wird nit kuy maye wird dëgër fit weesuwul ngay maye wird yaa moom wird bi ngay maye li ngay maye yaa ko moom yàlla mu ne inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi yàlla ak malaaka yi ñu ngi julli ci yonente bi yéen ñi gëm yàlla julli leen yàlla joxe ndigal lu yàlla joxe ndigal yaa ayyuha allazina amanu sallu fii lu amrin la ndigal la yàlla jox ne yéen ñi gëm yàlla ñu ne amu ne julli leen ci yonente bi kon kay lu yàlla joxe pare yow nga ñëw nga ne danga koy maye fi mu nekk ni sénégalais yi lenn ci ñoom amuñu ba léegi amaguñ ci droit non ñoom dañuy xaar ba seen papa wala seen yaay wala seen benn kilifa wala seen benn xarit jàpp seen loxo indi ba ci kilifa gi ne la diw nga ne ñu ne kii laa la indil dama bëgg tey jii nga may ko wird ñu ne la tàllal loxo yi nga tàllal loxo yi jox nañ la ko bul tardeeti waa ji jox la ko ak yàlla mi la ko jox ko ci gën a fonk salaatu ala nabi kenn dakaa moomul ba koy maye ba koy joxe yàlla moo ci joxe ndigal inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayuha allazina amanu sallu li muy tekki maanaa bi mooy azim ya rabbi muhammada yow yàlla muhammad day yàlla nga yokk ak màggam wal muraadu taazimuhu li ñu jublu ci màggal ko fi dunya bi ilaa zikri bu fekkee ci àdduna la màgg muhammad mooy turam na yegg fépp est-ce que turu muhammad yegg na fépp wala yeggu fan la turu muhammad des tur boobu mooy tur bi nga xam ne moom lañ ëpp lu ñuy wax ci àdduna par bis pour ngeen xam loolu ci calcul bu gaaw ñaata jàkk moo nekk ci biir Dakar xam ngeen ko jàkk ju nekk danañ nodd bés bu nekk ñaata yoon lu gën a tuuti juróomi yoon boo ko defee ñi nga xam ne benn waxtu wu nekk benn yoon la ñuy nodd ñii nodd ñaata yoon la ñuy wax ashhadu anna muhammadan boobu boobu boobu boobu dafa tuuti dinañ julli ah ñii julli ñaata yoon la ñuy taaya di wax ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasulu ci biir taaya julli suba ñaata yoon ngay tudd turu muhammad ñaari yoon julli tisbaar ñaata yoon ngay tudd turu muhammad ñaari yoon julli taksaan ñaata yoon ñaari yoon timis ñaata yoon ñaari yoon gee ñaata yoon ñaari yoon sooy dugg ci jàkk julleegoo di nga tudd turu muhammad wala doo tudd di nga ko tudd booy génn jàkk ci boo déggee ñuy nodd ah boo déggee ñuy li xaam kon yonent baa ngi noonu mooy yow yàlla turam bi na daj àdduna diineem ji na gën a feeñ diine yépp shari'am na tasaaroo alaaxira yàlla na nga ko jox ay may ak ay tiyaaba ba mu giijal yowmal qiyaam na ràmm jaam ñi ci sa kanam ëllëg alaaxira na nga ko jox place boobu ñuy wax maqaaman mahmudan allazi waadtahu loolu mooy allahuma salli ala muhammad loolu lay tekki loolu mooy maana bi mooy ci àdduna na nga kaweel turam nga yëkkati diineem shari'am des fi alaaxira nga jox koy may ak ay tiyaaba yu ne gàññ mu taxaw alaaxira ràmm jaam ñi ci sa kanam ay xéewalam ak ay ngëneelam nga sotti ko ko place bu sell bu tedd boobu ñu naan maqaamam mahmud nga jox ko ko ëllëg loolu mooy allahumma salli ala muhammadin loolu mooy maanaa bi jële nañ ci kaab mu ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam laaj nañ sahaaba yi ñu ne ko qad alimna kayfa nusallimu alayka fa kayfa nusalli alayka ñun dey yow yonent xam nañ bu ñu lay nuyu noonu lañ lay nuyoo kon moom leer na xam nañ waaye bu ñuy julli ci yow xamuñu nu ñuy jullee mu ne leen quulu allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama salayta ala ibrahima ba mu jeex lu doy waar mu ngi ci réew mi mooy yonent bi bi ñu ko laajee nan la ñuy julli ci yow moom dafa am benn siira benn formule salaatu bu mu bu mu joxe saxaaba bi ñu ko ne xam nañ lañ lay nuroo qad alimna kayfa nusallimuk léegi nag fa kayfa nusalli aleyk léegi ni ñuy jullee ci yow mu leen wax leen allahuma salli ala muhammadin wa ala ali muhammad ba mu jeex léegi naka la julli digg mi am na salaatu bu gën boobu salaatu boo xam ne dañ naan salaatu bi boo ko waxee ëllëg boo duggul àjjana poñeel yàlla naxuma leen de li may wax ni pas-pas la ci réew mi de pas-pas am na salaatu boo xam ne ñu ne boo ko waxee ëllëg duggoo àjjana ñu ne da ngay poñe yàlla ne ko fay ma li ma waxoon ñu ne salaatu boobu ku koy wird àjjana nga jëm sa soxna àjjana la jëm say doom àjjana la jëm say jabar àjjana lañ jëm say dëkkandoo nangam àjjana la jëm ñu ne salaatu boobu boo ko waxee ku la gis dugg àjjana ku la gis rek dugg àjjana dem nañ sax salaatu ba bootool ko tur ak yeneen ak yeneen ak yeneen yuñ ciy wax yoo xam ne place bi du maye wala waxtu wi du xej pour ñu wax ko almuhim li am solo te am importance mooy jullit li ko yonent bi wax la war a gëm li ko yonent bi indil la war a jëm ma ne yonent bi kenn indiwu fi fii ci kaw suuf si lu ëpp barke li mu indi moom ku bëgg barke yonent bi indi rek la barke nekk ndax ki yor barke gi moo ko jox ne ko yóbbulal ni jaam ñi kooku moo nañu wa ma ataakum rasul fa xuzuhu wa ma nahaakum anhu lu leen yonent bi indil jël leen lu mu leen tere bàyyi leen kon yonent bi nu muy indee salaatu salaatu boobu lan moo gën a màgg ci jaamu yàlla yi mun ngeen ma ko wax ibaadaat yi jaamu yàlla yi lu ci gën a màgg julli ban salaatu lañ ciy def lu garaaw mooy la hawla wala quwwata am na fi ay ay ay sénégalais yu ñuul yoo xam ne dañoo am salaatu salaatu ala Modou Diop salaatu ala Kumba Faal am na de billaahi wallaahi taala fii ma toog nii fii ma jàkkaarloo am na fi benn waay bu am salaatu salaatu ala diw mu am salaatu ñu koy defal ñu koy defal est-ce que loolu diine la est-ce que loolu diine la diine mooy lu yàlla wax mooy lu yeneen di bindi lépp imam Malik nee na lépp lu nekkul woon diine démb mënul nekk diine tey dañuy noppal suñ dañuy nax suñu bopp rek ak di réeral nit ñi ak nar a jël ay nit yóbbu leen safara kese waaye li yàlla indi waxoon wàcce woon yonent bi jàngale ko ba mu jóge fi jeex na ginnaaw yonent bi ku fi indi dara ku indi alxuraan wala nga indi a ñaan wala nga kenn du ko jël ku ko jël tamit da ngay sonal sa bopp doo am barke soo ko defee tam doo am tiyaaba gis nga ni ñu mënul changer rakk julli yi julli yi ni ñu ko mënul changer jaamu yàlla yi dafa wér ci ñun ne waruñu ko mun changer julli timis ñaata rakk lañ julli léegi ñett su benn waaye ne damaa bëgg tiyaaba bu bëri xaaral ma julli juróom benn ndax tiyaaba kooku li mu wax baax na wala baaxul li mu wax baax na wala baaxul non waxuma loolu ma ne li mu wax baax na wala baaxul baax na xoolal damay julli juróom benn gis nga di ngand ngandalu nag di jéem a génn dënn non six laa bëgg a julli parce que trois dafa tuuti yéen da ngeen ah da ngeen di julli lu bari xam nga loolu ku ko wax dëgg-dëgg gaa yi lay dégg dañ naan macha allah kii jàmbar la waaye bu demee julli six ràkka yooyu yàlla du ko nangu lu tax parce que trois la fi yonent bi indi woon lu tax kon yonent bi indi salaatu ne ñaan gii laa fi indi saxaaba yi bañ ko laajee mu ne wax leen lii beneen waaye ñëw ne la waaw yonent bi de bii la indi waaye man bi ma indi moo gën a baax nga gëm loolu te yonent bi nee na man bii laa la jox waa ñi ne la man bii laa indi man bii laa la jox te lu garaaw nee na yonent bi ma ko jox te digganteem ak yonent bi nekk na junni at ak nangam junni at ak nangam nekk na digganteem ak yonent bi mu ne yonent bi ma ko jox fan la ko joxee yonent bi génn na àdduna te lu garaaw mooy dafa ne bi ma koy jox face à face la ma ko joxee te yonent bi dee na face à face yonent bi dee na man suul ko mooy dama kaa gis face à face mu jox ma ko loolu doy na waar loolu ay mbir yu yéeme la ne leen yàlla dafa sutura ne leen yàlla won dëgg mu wërsëgal ñu lii mooy dëgg ñu topp ko ne leen yàlla won neen mu wërsëgal ñu lii mooy neen ñu sori ko yal na yàlla fëgg suñu xel yi ak suñu xol yi ba suñu xel yi mën a leer ba ñuy xam wax ju ñu mën a dégg rek ñu xam ndax war nañ koo topp wala war nañ koo mën a jël wala waruñu koo mën a jël mbokk yi julli ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam farata la wala du farata asalaatu ala nabi farata la wala sunna la wala mustahab la wala mandub la wala wala wala wala kuy tontu farata la nit julli nekkee farat farata la ci nit ki mu ne fardun ala almukallafi fi l umri marra farata la ci jullit mukallaf ku ñu togg jëf donte ne benn yoon la ci dundam mu wax ko rawatina nag buy julli bis bu nekk mu ngi koy wax rawatina bu toppee njàngale ni yonent bi alei salatu salaam kon lu gémmiñam di bara tudd bis bu nekk la kon julli ci yonent bi du sunna du mustahab du mandu farata la farata saa yi ko déggee mooy lu la yàlla wax defal soo ko bàyyi da ngay mbàkkaar kon fardu ayn la fardun ala al mukallafi fi l umri marra wa hiya fi kulli hiinin min as-sunan allati la yasixu tarkuha nee na salaatu ala nabi julli ci yenent bi dafa bokk ci sunna yi nga xam ne du wér mukk ab jullit di ko bàyyi di ko sàggane ginnaaw tey bokk na ci li dindi barke ci sunu dund bi nii mooy duñ def salaatu ala nabi duñ ko def ñu bari ci ñun buñ taayaa ba pare pare nañ ci néew na ci ñun ñuy def seeni azkar suba ngoon di ci boole salaatu ala nabi dafa néew ci jullit yi dafa néew loolu bokk na ci li nu alak tey mooy du ñu bëril julli ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam wala yuxfaluha illa man la xayra fihi kenn du sàggane julli ci yonent bi lu dul nit koo xam ne yiw fanaanul ci moom nit ku bon rek nit ku baaxul nit ku nar a alku moom dong mooy sàggane tudd yonent bi alayhi salaatu wasalaam ñëw na ci xadis jibril ne qaala lahu innahu ñëw na ci xadis wa fi lxadis anna jibril qaala lahu jibril nee na yonent bi alayhi salaatu wasalaam annahu man zakarta man zukirta indahu falam yusalli alayka fa abcadahu allahu wa ashaqahu jibril ñëw na ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne ko fépp fun la tudd te ay nit nekk ñu dégg ñu ne muhammad te julliwuñ ci yonent bi nee na ñooñu yàlla dina leen soril yërmandeem te ñooñu yàlla gedd na leen bépp jullit lay wan différence différence su bëgg yonent bi ak ñàkk koo bëgg léeg-léeg ci mbooloo mu mel nii nga ni muhammad benn waaye daal ne nii gémmiñam nii wala mu wax ko ci xolam déedéet loolu bu dee ci ñun dëgg la ci ñun ne bëgg nañ yonante bi ñu dégg ñu ne muhammad jàkka ji dafa war a riir ne sallallahu alayhi wa sallam pourtant bu ñu ne loolu ko wax am 1000 francs 2000 5000 10000 ci kaw nu ñuy def ku dégg ñu ne muhammad nooy def fag nga ne sallallahu alayhi wa sallam kon maa ngi leen di dénk di dénk sama bopp saa yi ngeen toogee ci barab ngeen dégg Muhammad na ñëpp dégg seen baat ni ngeen déggee tur bi Muhammad am na ba léegi ñu yënguwul de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sallallahu alayhi wa alihi wa sallam insha allah suñu dars bii di ñëwaat dañ koy def ci ngëneelu salaatu ala nabi lan moo ci nekk ci ngeen ngëneel ki koy def lan la tiyaaba la yam yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na maa jalasa qawmun majlisan lam yazkuru llaha fihi wa lam yusalli ala nabiyihim illa kaana alayhim titratun fa in saa azabahum wa in saa gafara lahum yonent bi nee na ay nit du nu toog ci benn place ci benn barab bu mel nii nu toog ñu toog ci place bi jóg tudduñu fa yàlla ñu toog ci place bi jóg julliwuñu fa yonent bi ci seen yonent sallallahu alayhi wa sallam illa kaana alayhim titra lu dul place boobu dina nekk ci ñoom perte fa in saa azabahum bu neexee yàlla mu mbugal leen wa in saa gafara lahum bu ko neexee mu baal leen waaye place boobu moom ñoom perte nañ ko amuñu fa tiyaaba su neexee yàlla ëllëg mu mbugal leen ci loolu ñu def bu ko neexee mu baal leen ñëw na ci beneen xadis yonent bi nee na man zukirtu indahu fa lam yusalli alayya fa daxala annaar fa abadahu llah képp ku dégg sama tur ñu ne muhammad te waxul sallallahu alayhi wa sallam yonent bi nee na dana dugg safara te yàlla dina ko soril yërmande dana dugg safara te yàlla dina ko soril yërmande yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na albaxiilu man zukirtu indahu fa lam yusalli alayya ki nay dëgg dëgg dëgg kan mooy ki nay Sénégal mu la doon wax ku nay mooy kan looy wax xam nga nay nay mooy lan mooy ku dul joxe yonent bi nag nee na ku nay du kooku de ñu ne ko mooy kan mu ne ku dégg ñu ne Muhammad te waxul sallallahu alayhi wa sallam nee na kii moo nay allahu akbar sallallahu alayhi wa sallam yonent bi nee na awla naasa bi yowma alqiyaama aksaruhum salaatan alayya yonent bi nee na ki gën a yey ci man ëllëg yowma alqiyaama maanaam ki may jege di ànd ak man nekk ak man gën a yey ci man mooy ku ëpp lu mu julli ci man kuy ëpp lu muy wax allahuma salli ala muhammad kookoo ëpp yowma alqiyaama kuy jeg kuy nekk ak yonent bi alayhi salaatu wasalaam awalu naas bi awla naas bi ñi gën a yey ci man ëllëg yowma alqiyaama aksaruhum salaatan alayya ñi gën a yey ci yonent bi ëllëg mooy ñi nga xam ne dañuy julli ci moom lu baree baree bari yonent bi nee na man salla ala nabi sallallahu alayhi wa sallam wahidatan sallallahu alayhi wa malaikatuhu sabina salaa képp ku julli ci yonent bi benn yoon mu ne allahuma salli ala muhammadin wa ala ali muhammad kama salayta ala ibrahim wa ala ali ibrahim wa barik ala muhammadin wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim fi laalamina innaka hamidun majid ku wax lii malaaka yi dinañ la ko wax juróom-ñaar fukki yoon ak yàlla subhanahu wa taala yow benn yoon nga ko wax yonent bi yàlla ak malaaka yi wax la ko juróom-ñaar fukki yoon yow kon ñun ñun ñun ñoo nekk ñun ñoo war a nekk ñan kon ndeysaan waaw parce que ñun nag soo gisee ñu mel nii mooy dañoo xamul aussi wanuñu ñu li jàngaluñ ñu ko leneen lan lu won ay mbir yoo xam ne da ngay gis ku ci sonn ay ñaan yoo xam ne amul bopp amul geen amul benn tiyaaba nit ki di ci rey boppam bàyyi li gën gi mbindeef indi woon li nga xam ne moom moo ko waxte maa yantiqu anil hawa yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na min afdali ayaamikum yowmul jumaa fihi xuliqa aadam wa fihi qubid wa fihi nafaxa wa fihi saaq fa aksiru alayya min alsalaati fihi fa inna salaatakum mucradatun alayya yonent bi nee na bis bi gën ci bis yi mooy bisu àjjuma ci la yàlla bind aadama ci la ko rey ci la yàlla di def yowmal qiyaam ci la ñuy ci la ñuy ëf béjjin bi ñépp dekki yonent bi nee na kon bu bisu àjjuma jotee dee leen bëri lu ngeen di julli ci man bisu àjjuma dee leen bëri lu ngeen di wax allahuma salli ala muhammadin wa ala ali muhammad bisu àjjuma fa aksiru alayya min alsalaati fiihi bëri leen lu ngeen di julli ci man bisu ajjuma allahu akbar mu ne fa inna salaatakum naka seen julli maaru maarudatun alayya dañ ma koy gaaral dañ koy indi di ma ko won naan ma diw moo wax lii diw moo wax lii diw moo la wax lii diw moo la ñaanal lii ndax du nekk gàccee ci ñun ñu ne yonent bi na waa diw nag ñu ne koo kay moom xamula sax ok tàllu la sax moo ngi jàllamb ja mu ngi stade mu ngi super ndaje kooku dem na kooku kooku tàllu la yow yonent bi ndeysaan allahu akbar bu ne woon fi ngay liggéeyee boo liggéeyee ba ngoon dañuy jël li nga liggéey woon ko sa chef li nga liggéey woon doo liggéey yéen tamit ne bisu ajjuma na ngeen bëri lu ngeen di julli ci man ndax seeni julli dañ ma koy gaaral dañ koy indi ci man di ma ko won allahu akbar kan mooy ku nay koo xamante ne dañ naan diw def na cent ñu ne diw na ñu ne moom de yonent bi benn yoon rek la ko wax rek daal di jóg ndax bi mu ko waxee fekk boobu làmb jaa ngi waaj a commencé mu daw dem seetaan dem na yàlla jubal gis nga su naal nañ ci boo déggee ñu nodd waa ji buy nodd lu mu wax nga wax boo yeggee ci hayya ala salaa looy wax bu waxee hayya ala falaa looy wax su paree nga wax allahumma rabba hadihi daawati tamma wa salaati alqaima ati muhammadan alwasilata walfadila wa wasu maqaman mahmudan alladi waat boo yemee foofu baax na boo yeggee innaka la tuxlifu lmiaad baax na yonent bi ne la képp ku wax lii mu ne ëllëg yowma alqiyaama xalaltu lahu shafaati yowma alqiyaama yowma alqiyaama man maa lay rammu boo naroon dugg safara maa ngi ñëw jàpp sa loxo dugal la aljanna loolu du garanti ñaan ci ñun fi mu ñoo mun ñaan bi xaaral ma tàmbalee ndeyjoor bismillah mën nga ko allahuma rabba haasi daawati tàmma mën nga ko waxal waxal nga ko yow waxal nga ko yow waxal nga ko yow nag yow nag yow nag da nga ko jàng yow nag da nga ko jàng yow nag yow nag yow nag yow nag yow nag yow nag yow nag ko jàng gis nga de yonent bi nee na maa lay ramm yowmal qiyaam bu nga yonent bi ramm la yow nag yow nag kon ku bëgg yonent bi ramm la ñaan baa ngi noonu mu ne xalaltu lahu shafaati yowmal qiyaama allahu akbar ay waay yonent bi di la ramm xool yonent ñoo jàpp sa lox loolu rëy na de ñëpp di la xool mu dugal la biir firdaws buñ ne woon tey Macky Sall jàpp sa loxo di la dugal biir palais allah nga naan dama fay fanaani buntu bi laay tëdd ndax rek palais nga jëm yeneen bi moo ne xalaltu lahu shafaati yowma alqiyama waxul dama yónni Aboubacar waxul dama yónni Omar waxul dama yónni Ousmane bu yónni woon ñooñu sax dina neex waaye mu ne man mii man maa warlul maa la warlul maa lay ramu man maa la ko warlul kon loolu boo ci dëkkee di ko wax booy dugg jàkk yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na booy ñëwee ba ci jàkk ci nga ni bismillah wasalaatu wasalaam ala rasulillah allahumma allahumma aftax li abwaaba rahmatik nga dugal sa tànk ndeyjoor nga dugg nga julli ñaari raak nga toog di xaar julli gi yonent bi yónnee la ñaari malaak kii naan yàlla jéggal ko kii naan yàlla baal ko te julleeguloo allahuma axfir lahu allahuma arhamhu te julleegoo waaw nga julli ba pare génn bi ngay dugg ban tànk nga jiitaloon ndeyjoor bi ngay génn ban tànk nga jiital càmmoñ nga ni bismillah wa salaatu wa salaam ala rasulillah allahumma allahumma allahumma allahumma inni as'aluka min fadlik booy dugg allahumma aftax lii booy génn allahumma inni as'aluka min fadlik xoolal def nga asalaatu ala nabi bi ngay dugg bi ngay génn bi nga déggee nodd bi sooy taayee yaa ngi tudd yonent bi alayhi salaatu wasalaam loolu moo tax boo duggee biir bàmmeel nit ñi suul la bay ñibbi moo tax sénégalais yi wallaay war nañoo yeewu biir bàmmeel kenn du laaj sàmba kenn du laaj muudu kenn du laaj tariixa kenn du laaj ndey kenn du laaj baay kenn du laaj xam nga lu ñuy laaj muhammad kon kay kii jar naa xam balaa ngay dee loolu rek doy na bu fekkoon dañ lay laaj sa sëriñ yow nga ne waay man kay ci ngandum tariixa laa bokkoon diw la woon moo fa nekkoon kooku kenn du ko laaj yàlla xamul ko ku kenn du ko laaj bàmmeel bàmmeel bu la dugalee ba ñibbi ñi ñibbi di nit ñi di kannasu kannasu xam na ne foofu duñ fa laaj sax sa papa ak sa yaay loolu lay wax maada kunta taqulu ala hadha al abdu muhammada sallallahu alayhi waaw muhammad ma nga doon dégg waaw loo doon wax ci moom yow bi nga nekkee ci àdduna loo doon wax ci moom waaw ñu wan la image am nii fekkee ne ama almumin fa yaqulu kuntu ashhadu annahu abdullahi wa rasuluhu wa annahu jaana bilhaq min indillah seede woon naa ne muhammad mii de yàlla ko yónni seede woon naa ne la mu indi woon dëgg la mu ngi ko jëlee ci yàlla gis nga bu waa ji waxee loolu te muy dëgg dañuy dégg benn baat di xaar ci kaw asamaan naan sadaqa abdi sama jaam bi de wax na dëgg wax na dëgg de lalal leen ko lali aljanna lalal leen ko lali aljanna yaatal leen bàmmeel bi waaye léegi nag amal munaafiq awil kaafir bu dee waa ji naafiq la woon wala yëfir buñ ko ne loo doon wax ci muhammad mu ne laa adiri xaw ma ko xaw ma ko de ñu ne ko laa talayta wala darayta xamoo te yàlla boo xamati yonent bi ne dañ ko dóor benn bolle bay na usnay yi ci diggante ñaari nopp yi fa yasihu sayxatan yasmauhu man yalihi illa al ins wal jinn yuuxu bi muy yuuxu ñépp koy dégg ba mu des nit ak jinne yéen a toog fii rek waaye seeni bàmmeel yaay yuuxu kese la ndax xam ngeen ne nit ñi xamuñu muhammad xamuñu ko di sénégalais yi xam nañ ku nekk ba mu des muhammad wallahi lazi la ilaha illa huwa fii xam nañ ku nekk ba mu des muhammad xam nañ ñi football xam nañ danseurs yi fecckat yi xam nañ bàkkukat yi mbër yi xam nañ théâtre kat yi xam nañ rappeurs yi xam nañu sax fas yi fas yi fas da ngay gis sénégalais bu juddoo Sénégal xam benn juróom-ñaari maamu fas buy daw Angleterre naan fas bi maamam États-Unis la yaroo après mu màgg ñu jaay ko Allemagne bu daw fa 6 mois dem Londres dem France di day topp fas bi suñ ko nee Mouhamed mu ne non vraiment xaw ma ci lu bari quoi xaw ma ci lu bari sallallahu alayhi wa sallam waaw ñun daal xamuñ ci Mouhamed lu dul Abdoulaye mooy papaam Amina mooy yaayam Màkka la juddoo Madina la faatoo tabala yi daal di rëngata ndëng rëng loxo ci kaw bàkkaar ci suuf ñu ne nii est-ce que sànni xaalis bi gars yi raatale yóbbu jënd jaay oto ñun lii kese lañ xam ci muhammad sallallahu alayhi wa sallam kanoon yàlla jéggal mbokk yi jullit bu xamul yonent bi rek alku na ëllëg jàngeen ci alquran yàlla mu ne ëllëg ñi xamul yonent bi danañ màtt seen ñaari loxo wa yawma ya'uddu zaalimu ala yadayhi ëllëg démb suba ñi xamuloon yonent bi yàlla ne danaan màtt seen ñaari loxo lan la ñuy rëccu la ñuy wax yaa laytanii yaa waylata laytanii lam attaxis fulaanan xalila yaa laytanii taxastu maa rasuli sabila gis ngeen ar rasul la ñuy wax rasul sallallahu alayhi wa sallam yàlla ne wa man yaasi llaha wa rasulahu fa inna lahu naara jahannam ku bàyyi yàlla ak yonent yàlla nee na safara nga jëm bul sonn safara nga jëm fa inna lahu naara jahannam wala jàng leen ci kuluhiya wa man yaasi llaha wa rasulahu fa inna lahu loolu daa xoraan wa man yusaaqi rasul min baadi ma tabayyana lahu huda yàlla nee nu wallihi ma tawalla ku bàyyi yàlla ak yonent jàpp leneen yàlla nee na la nga jàpp ma bàyyi la ak moom ba ëllëg ba nga yegsi li nga xam ne kooku amul yorul mënul mbir maa ngi fii ci man nu wallihi ma tawalla la wax allahu akbar kon doomu ndey ñoo ngi fii di dund deewagun bu ñu dara jay bu ñu dara wa- nax yonent bi la yàlla yónni yàlla yónniwul kenn alxuraan 114 saar la wax leen ma ci turu kenn ku dul muhammad wax leen wax leen benn yonent bu yàlla yónni Sénégal bu yàlla wax turam ci alxuraan maadaama ay jullit lañu bu ñuy julli penk la ñuy jublu li yonent bi indi la ñuy def kon nag nañu xam yonent bi mooy kan dars bii di ñëwaat ngëneel yi wax ci salaatu ala nabi la ñuy def ñu ñaan yàlla may nu fekkee nangul nu asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatu ustaz yawmul jumaa bala nga def Tuubaa boo boo wootee da nga wax